Thierno Alassane Sall keroog bi nga xam ne responsable yi convoqué nañu Dakar pour ñu war a pour mën a tànn nga xam ne ñoo war a nekk ci conseil yi mu daal di fay wane li nga xam ne mooy bëgg jaay doole. tànn li itam boo xamante ni ci zone est bi la nekk ñu gën koo xam ne ci Fatou Sané bëgg a loolu nga xam ne parti bi ñëpp ñoo ko bokk. ñu ñëpp dañu waroon a toog concentré wu waxtaan ci suñu biir waxtaan ci ay xalaat ba déggoo ci loolu soo koo jël jox ko nit moom mu bëgg koo jël benn nitam tànn ko ko neex te ko ko te ñoom ñaar bokkuñu sax doon njëkk amee financement te it ci docteur Pape Amadou Ndiaye fii lañ njëkk a amee li nga xam ne mooy comité électoral kon tey nit kooku nañu bàyyi xel ni bi ñu demee ci élection yi nga xam ne mooy élection locale ñëpp xam na ne benn liste moo amoon muy liste boo xamante nii mooy défendre le président Macky Sall mooy Benno Bokk Yaakaar te tey liste boobu ñi nga xam ne ñoo ko beddi woon defar yeneeni liste ci zone est def ko ci zone nord muy le ministre Thierno Alassane Sall deuxième position wu liste bu zone est bi Pakistan bi moom moo nekkoon ci position boobu te ba fii may wax yow amul kenn ku bokk ci parti bi wala nga dëkk Thiès. dégg leen ñoom ñu defaat déclaration bi wane ne dellusiwaat nañ ci parti APR ndax te dañ cee génnoon kon nag ñoo ngi lancé appel le président na la République Macky Sall di wax ne Fatou Sané moom li nga xam ne moom la ko ministre Thierno Alassane Sall bëgg ko attanu ko te mënu koo yor bi mooy yaakaar naa ne yéen suñu mbokk yi am na loo xamante ni du ngeen ci bàyyi nga xam ne mooy. Lamine Sangaré nekk ci ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ci Thiès Est fii dem na ci ki nga xam ne mooy nitu yi nga xam ne ñoo nekk ci parti Sané génne fa 127 femmes yoo xamante ni dañoo jógee foofu ci parti APR ñëw pour rallier fi nga xam ne mooy ci parti réew mi kon yaakaar naa ne tey bu fekkee ne da nga bëgg a jël responsabilité bu nii di ko dénk benn femme dafa war a nekk femme bu crédible dafa war a nekk ndaw soo xam ni du wàññi. mais yaakaar naa ne day dajale di fatal président Macky Sall mais tey jii nii yokkuñu parti bi mais dañu gis ne dañoo diminuer suñu parti bu baax a baax baax te aussi dafa am loo xamante ni dañ koy revendiquer ndaxte ñun yàlla dafa def ñu nekk ay jeunes nekk ci parti bi waaye heure bu ñu bëggee wax suñu leader docteur di ñu toog leen mais dafa am loo xamante ni dafa jot pour ñu jooytu ko mooy ci parti bi bi ñu si nekkee ba léegi le ministre Thierno Alassane Sall. lépp lu ñuy séddale ci parti bi mu foog ne moo ci gën a yey lu ñu yëkkati mu bëgg koo tegoo loxo bëgg koo xëccoo nit ñi dama ne nañu rappelé bu baax ci suñu ginnaaw 2014 yàggul élection référendum bërki démb la koo xamante ni yow gox bi nga dëkk chaque élection da nga fay dem am nga fa 22 bureaux de vote mënoo fa gagné benn bureau élection yi nga xam ne mooy locales yi li laay wax xam du 21 bureau lay perte gagné benn la ci gagné élection référendum yi moo ci mujj dañ koo gagné ba gagné fi mu dëkk kon nag il est temps que ñu xam ne politique nekkul rek ndomba tànk yi la état jox waaye tamit gox ba nga dëkk ak fa nga xam ne moom ngay yeewoo bu fekkee ne askan boobu joxuñu la loxo joxuñu la baat da nga war a xam sa bopp ñun ñi ñu àndal ku mel ni docteur Pape Amadou Ndiaye ak Siré Dia directeur général de la pos ñoom gox yooyu ñu nekk heure bu élection jotee dañuy gagné massivement seen gox jël ko teg ko ci loxo président Macky Sall malgré ne ci gox bi ñu dëkk muy Thiès ñëpp xam nañ ne opposition lañ fi mais lu mu métti métti métti fi ñu dëkk dañ koy gagné. kon tey dama bëgg aussi ñu xam ne parti bi femmes yi da ngay jël ku la neex rek toppal déedéet am na fi ay femmes yoo xamante ni ñu ngi ci parti bi di liggéey ay femmes yu jàmbaar lañ ku mel ni Maymouna Sène ak ki nga xam ne mooy ñoom Aram ñooñu ñëpp dañu nekk ay nit yoo xamante nii ay femmes yoo xam ni ñu ngi ci parti bi di xeex di liggéey pour président Macky Sall kon dama bëgg ñu bàyyi xel bu baax waaye dafa am mbir boo xamante ni tey bii nii ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk di ay jeunes dañuy jóg jël suñuy propre décision taxaw dóor ci table yi lancé appel le président de la république Macky Sall wax ak moom parce que tey fi mu nekk nii. amuñu xool bu neex yu ñu parti bi nga xam ne ci la ñuy liggéey muy APR amuñu ci xol boo xamante ni xol bu féex la ndaxte li tax ñu wax ne amuñu ci loolu kii nga xam ne mooy suñu leader docteur Pape Amadou Ndiaye ne parti bi lépp loo xamante ni cër la buñ koy joxee ci parti bi du ci am muy bu fekkee ne dañuy tëddale ay biir màkka buñ waree joxee duñ dañ koy tëb duñ ko jox tam bu jotee lépp lu ñuy séddale ci ay nag duñ ko jox dañ koy tëb ba ci feetu Pâques ak ci Korité ak Tabaski yi ba ci élection yi ñuy def bu ñuy dem campagne moyens yi ñuy séddale sax lu ci bari day yëkkati ay maigre moyen dolli ci pour mën a jàppale président Macky Sall mu mën a réussir mission kon nag dama jàpp ne docteur leader la boo xam ni président ñu ko ci lancé appel mu gëstu ko bu baax a baax a baax te tey lan ngay mën a xam ne ñàkk a jàppale bi nga xam ne moom lañ ko ñàkk a jàppale salaire bi nga xam ne moom lañ ko daggal mu koy fayeku par weer dafa xam ne instant bi parti bi amul leen lu mu ci gis loo dafa yëkkati salaire teg ko ci disposition parti bi teg ko ci disposition militaire yi ñu ciy réglé li nga xam ne mooy seen besoin kon tey ne nga xam ne moom la ñu bokk di ko liggéey il faut que ñu jox ñu suñu gëdd moo tax ñun jeunes yi ñuy jóg daal di def réclamer li nga xam ne moom la ñuy wax mooy dox daal di ñaxtu wax li ñuy wax nag dafa leer parti bi yàgg nañ ci ñu ngi ci liggéey gis ñu ci suñu bopp dañ ci gisul suñu bopp gis ñi suñu bopp mooy lan mooy ku mel ni docteur bi nekk ci ginnaawam ku ko 300 groupement yor ay financement yoo xamante ni da koo dagg jox ko ay ay femmes yu dul jeex yor li nga xam ne mooy ay comité yoo xamante ni ëpp na 300 comité kon ku mel noonu il faut ñu dooleel ko ci ay moyens jàppale ko ba nga xam ne mbooloo bi nekk ci ginnaaw dina leen mën a satisfaire waaye aussi dafa am loo xam ne tamit dañ koy réclamer ndax ci parti bi dañuy seetlu ne toujours ñu nga xam ne ñoom lañu gis ñuy dem ci li nga xam ne mooy secrétariat exécutif mooy ci kaw di fa réunion ci au nom du parti ñooñu dañuy seetlu ni ñooñu dañu seetlu ni mooy ñi nga xam ne bu ñu ñëwee fi au niveau de Thiès amuñu fi base bu ñu xoolee au niveau de Thiès amuñu fi li nga xam ni tey jii moom lañ leen mën a sukkandiku ba président mën a yaakaar ci ñoom am ndam bu fekkee ne dangay ngay politique président Macky Sall boo ñëwee Thiès da ngay def 15 jours ba 15 jours te samedi ngay ñëw ñaari kër ñetti kër ngay dugg yaakaar naa ne pour nga mën a am baat boobu du yomb. kon nga xam ne mooy secrétariat exécutif boobu ñu ngi wax le président Macky Sall foofu am na ñoo xamante ni ñoo ko gën a yeyoo ku mel ni docteur Pape Amadou Diaye ak ku mel ni ki nga xam ne mooy directeur général de la poste Siré Dia li ñuy liggéey ci Thiès ñooñu mérité na ñu dugal nga xam ne mooy ci direction parti bu ko defee lépp lu ñuy fas ak lu ñuy fekk ci parti bi mu war a mën a wàcc jóge Dakar ñëw fii ci Thiès ñoom ñu mën a xam loolu. beneen bi il faut ñu xam lenn directeur général de la pot Bassiré Dia il faut ñu ñëw ci parce que tey zone bi nga xam ne mooy zone est moom Thierno nomination bi nga xam ne moom la bëgg a jël jox ko ndawam soosu baam boobu ci est bi la dëkk te yu mel noonu tey jii boo demee ba bëgg ko def. te est bi yaa ngi ko fekk ay responsable yoo nga fa di liggéey ku mel ni directeur général de la PACO nga ko mais loolu yëpp dañ ko cee gisul te tey directeur lu mu mën ci parti bi mi ngi koy def mi ngi massifier parti bi tey jii jeunes yi mi ngi leen wutal emploi tey jii boo xoolee jàkka yi ak jumaa yi mi ngi leen subventionné di jàppale nit ñi ci mu mën te yaakaar naa ne président Macky Sall politique boobu la soxla mooy nit ñi nga xam ne ñu ngi sur le terrain di liggéey di sonn suba ak ngoon guddeeg bëccëg ñu daal li nga xam ne moom leen leen war a jox ñu jox leen ko kon nag nañu xam ne parti APR parti la boo xamante nii dañ ko bokk parti la boo xamante ni nañu xam ne bu ñu bëggee mu jëm kanam dañuy tàppe xol yi te xam ne benn objectif la ñu am mooy soutenir ki nga xam ne mooy le président Macky pour li nga xam ne mooy ndam li mu bëgg ci législative yi di ñëw ak élection présidentielle yi di ñëw président Macky Sall mën am ndam bu baax a baax baax mais aussi ñoo ngi sant tamit ñëpp di remercier ñëpp ci délégation yi nga xam ne ñoo fi di wax ne li am solo. mooy ndax li am solo mooy liggéeyal président chers invités, chers frères du parti, chers amis de la presse. Je vous dis d'emblée, mes chers camarades, que nous avons perdu les élections locales de 2014 à cause des listes parallèles dans la commune de Thiès-Est. Et voilà qu'à notre grande surprise, on veut promouvoir une dame qui se, du nom de Fatou Sané, qui était à la deuxième position de la liste parallèle d'alors, proposée candidate au, haut, au poste de Haut Conseil des collectivités territoriales Plus de 127 femmes de la commune de Thiès-Est ont quitté Fatou Sané pour rejoindre Mamadou Lamine Sangaré. Et par ses actes et son comportement très mal apprécié par les populations. Il faut reconnaître qu'un parti non structuré comme le nôtre, s'il a gagné la confiance des Sénégalais, c'est grâce à la discipline de notre leader, le président, son Excellence Macky Sall, notre référence. On ne peut accepter que des personnes qui ont commis des fautes lourdes dans le parti soient promues. Ce qui serait dangereux. Une fine analyse politique nous montre que la zone ouest est la plus accessible. C'est donc là-bas que nous devrons renforcer pour une victoire décisive. Dans la zone ouest, la coalition entre Defartiès et aux abois, malgré l'aide du PDS, et de la coalition, car il n'y a eu que 800 sur nous lors des référendums. Je vous rappelle qu'en 2014, il nous de 900 voix et que nous sommes faibles à Grand-Thiès et à Randoulène, où nous avions perdu sur les 22 bureaux de vote. 21 sur les 22 bureaux de vote. Nous avons des femmes élues, battantes, qui ont accompli un travail remarquable à Grand Thiès et à Randoulène. Je veux nommer Maïmouna Sène et Aram Silla. Randoulène, bastion d'Idriss Seck. Il serait donc plus judicieux de renforcer les femmes leaders qui ont toujours montré leur engagement sans faille pour le parti, enfin d'éliminer Idriss Seck de la carte géopolitique de Thiès. C'est dans cette commune que nous devons renforcer nos moyens par des postes de promotion politique, car c'est là que loge le caïman de Réumi. Le grand absent des rendez-vous historiques de notre pays, comme la prière récente du Corité, qu'il a célébrée hors de Thiès et du pays. Il dit qui a dilapidé nos ressources, les ressources de, cette, de notre chère Thiès, et à brader le foncier des Thiessois à des Libanais et à des opérateurs économiques véreux. Il y a beaucoup à faire dans ce quartier de Grand Thiès. Et, et à Randoulène aussi. C'est une occasion pour nous de remercier et de souhaiter au nouvel renfort de l'APR des dames telles que Ndeye Tické et Ndeyawa Mbaye. Nous regrettons les faits et gestes de certains responsables politiques de la l'APR dans la ville de Thiès et du département. Ainsi, nous vous rappelons que plus de groupements et de femmes travaillent avec le PCA du FONGIP. Récemment, le réseau des acteurs communautaires de santé a fait acte d'allégeance à Dr Pape Amadou Ndiaye. Les Toucouleurs de Thiès ont manifesté leur contentement face à un politique qui les a soutenus lors de leur soirée culturelle. Des réumistes quittent Idi pour rejoindre l'homme de la situation, le docteur Papa Amadou Ndiaye. Je suis sûr qu'avec docteur et des leaders comme docteur Thiès va réussir sa politique sur la base des programmes qu'il a mis en place depuis son accession, depuis son accession à la magistrature suprême, tels que le PSE, des PUDC, le PUMA. Ainsi, nous jeunes du parti, avec les femmes et toutes les autres secteur de ce parti, nous réclamons l'intégration du docteur Pape Amadou Ndiaye et de Pape Siredia, DG de la Poste, dans les instances de décision du parti. Pour nous, il est inadmissible et impassable qu'un autre apériste puisse, puisse diriger la ville en dehors de ses valeurs responsables, infatigables et véritables ouvriers du parti ceux que nous venons de citer. Voici des responsables qui sont en permanence à côté des Thiessois. Le docteur Pape Amadou Ndiaye n'a jamais reçu de moyens venant du parti pour régler les problèmes des militants, comme en reçoivent certains d'autres responsables. Puisque tous les responsables reçoivent des, des, des billets des tickets pour le pèlerinage de la Mecque ou à Rome, des aides Tabaski de Pâques. Récemment, euh, au niveau du stade Magnan Soirée, lors de la fête de Tamharit, on a mis là des bœufs à la disposition du parti qu'on a distribué aux responsables, mais le docteur Pam Amadou Ndiaye n'en a jamais reçu. Ce que nous trouvons déplorable. Nous, responsables et partisans du du parti, nous nous engageons dans toutes les batailles politiques à Thiès, car il est temps que le président de la République identifie ceux qui travaillent et ceux qui ruminent. Ainsi, nous allons nous concerter ultérieurement pour prendre une décision face à ce que nous réclamons. Nous félicitons Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Macky Sall pour les actes posés pour le développement de ce pays et pour son émergence. À tous et à toutes, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Euh, je m'appelle Ousmane Diop, je me nomme ainsi euh, je suis de la zone nord. j'étais le président de la commission mobilisation de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors des élections locales et lors euh, des élections référendaires je vous remercie